ngir yëwanal ubbitib école bi nu jàpp amal ñaari fan ci weeru juin ci atum fii ci diwaanu Mbàkke maire bu Mbàkke Abdou Mbàkke Ndaw delloo buum ca boy boy ba ne ay masque ay thermoflash ay lave waaye sax dolli na ci ay détergent la jébbal IEF bu Mbàkke Abdou Mbacke Ndaw di wax ne dana def kéemtalaay kàttanam ba ben élève du gis ab gàllankoor rawati ñi nga xam ñoy ñooy kat yi. waaw inspecteur jébbal nañ ko sang lo xamanteni lo 15555 quinze masques lay don ak ñeent fukki thermoflash ak euh, juróom fukki lave main yu mag ak euh, juróomi témèr ci ay bouteilles détergent loolu it ginnaaw bi nga xamante ni désinfecté nañu école yi ci la ñu door a indi jëf ji teg ko ci loxo inspecteur di xam la rek ne njëlbeen la pour accompagner ko di xamal inspecteur bi moom mbooleem directeur d'école yi ak mbooleem surveillant yi ñi seq liggéey bi yëpp que ñun ñi ngi fi te lii étape bu njëkk la incha allah nañ fas yéene fi beneen étape

te seq liggéey bi ñu ngi leen di manifester suñu détermination ak suñu engagement pour que lépp loo xamante ni soxlawaat ngeen ko rek ñu continuer di ci jàpp ndax xam ngeen ne mairie Mbacké moom li jëm ci jàng ak wér-gi-yaram daf ko daf ko jox importance bu am solo kon nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom suba ñu ubbi ci jàmm mm. yàlla musal ñu musal xale ba liñ ci yéene lépp ñoom ko ci jëf ji it bon segam élève yépp mbacké liñ jëm ci kon nañu def suñu kemtalaay kàttan pour jël en charge élève mbacké yépp kon étape bi ñi xaar deuxième bu ñu évaluer euh, à la semaine prochaine ñu xol ban étape la ñuy waté pour accompagner école muy ay jumtukaay yu bari te am solo waaye am njariñ lool yef bu Mbàkke Njaga Ba di wax ne Abdou Mbacke Ndaw yag na jëf jëf ju nu mel jëmele ko ci l'école bi. dama bëggoon ci turu sama turu bopp ak turu ñëpp ñi nga xam ne kat ak parents d'élèves yi ñi nga xam ñoo nekk département bi ñuy gërëm bu baax euh, conseil municipal bu Mbacke bi nga xam ni monsieur le maire Abdou Mbacke Ndaw moo ko jiite. di leen remercier ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ngir ñu nga xam ni li nga xam ne war nañ ko am.

ni ki mi ngi liggéey ci domaine éducation donc loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax te lii tey moo koy firndeel encore ba nga xamee dem nañ ba nit ñi xaw a jaaxle sax di wax ndax ubbi dina mën a am ndax lu collectivité territoriale jëlee engagement ndax daañ ko respecté moom war na ni loolu war nañ ko mën a respecté te respecté na ko ba dem na sax ba weesu loolu parce que ba ñuy séddale liggéey bi dañ ñëwoon collectivité territoriale nañ jël li nga xam ne mooy masque yi ak lépp li nga xam ne moom la ñu moo aaju ci wàllu raxasu moy lave-mains ak produit lolou lepp joxe nako ba tek ci sax ay thermoflash donc pour dire que taxaway bu mu taxaw dañ koy rafel bu baakha baakha baax parce que tay dalal na suñu xel pour di fi ci commune bi meun nañ am yaakar que duñu am jafé jafé ci walu transport bi comme nu ma ko waxee léegi transport dafa nek lo xamni lu xawa doy war la fi ci diwanu Mbacké mais ñun teel nañ cee jog parce que xalé yi nga xamni ño ño amé amee élève yi. ñëw nañu boo waxoon ñu ni am nañu jafe-jafe ci wàllu boobu jafe-jafe mooy gis nañu ni oto yi leen di yóbbu dañoo wàññeeku kon ñoom bu ñu commencé xëy na oto mën na jafe mais beneen mooy aussi passé dañ ko yokkoon bañ ko waxee monsieur le préfet moom it nga xam ne taxawaayam dafa rafet trop ci wàllu éducation bi dafa woote rapidement benn CDD bi nga xam ni regroupement des transporteurs ñoom ñëpp ñëwoon nañu ci jiitu seen président muy IDICA ba ñu waxtaanee ak ñoom ba pare. wax leen situation élèves yi conditions yi ñu nekk yi ñu ñoom bien que sax toog nañu ay weer dawuñu situation bi jafe na mais teewul daañ jàppale xale yi parce que ñoom it ay acteurs de développement lañ xate xale yi seen ay doom lañ moo tax ñu ni ñoom daañu génne seen oto yi muy tataa yi daan leen génne ba ñu doy pour ñu mën a yóbbu xale yi paas yi aussi daañ ko yóbbu fu mu nekkoon muy 100 francs suñu jógee fi ba jumaa ji nga xam ne xale yi daañu mën a dem di dikk voilà léegi léegi aussi bu ñuy jël tataa yi dañuy am ay points yoo xam ne mooy point de départ ba paré ñu encore organiser entre 8h 37h30 et 8h45 xalé rek jël comme ça buñu jël xalé ba paré ñu nous ñu jibul à 15h30 ñu ñëw leena pour dégager le fi donc problème transport comme nous ko waxé ce engagement engagement respecté ou duñ ci am jafe allah. lii mooy ay jumtukaay kon yu nga xam ne jébbal na ko école bi moo ne ci xeex bi nga xam ne kon nguru senegal su mun na ko ngir daaneel coronavirus du Mbacké ndaw jotoon na génn fukki million ak juróom jënd ko ay dund waaye it fukki junni masque jébbal ko askan wi.